suñu seetloo ñu ngi dëmbante bu baax baax ci ni ma ko mën a waxee wala ni ko olof di waxee maanaam ñu ngi weerante te weerante boobu xëy na la moo ko waral ñàkk déggoo wala la moo ko waral nguur daanu wala moo ko waral mooy ñàkk taxawaay bi am solo wala moo ko waral xëy na amaana ba léegi tamit euh, lu nga xam ne dëgg lalu ko moo ko waral lan moo ko waral ba léegi mën a nekk si sax buñ seetloo. Euh, mooy yaa a neex yaa ma jege kaay ma fal la picc bu lakk taat dafay bëgg moroom loolu askan bi wax jamono gi nga xam ni président Bassirou Diomaye Diakhar fay fal na ci lenn ci ndaw ndaw ñu génn am ñu ne dafa falaale ki nga xam ni moo di doomu doomu Yacine Fall waaye bu leen fàttali leen ci ginnaaw Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa ne woon sénégalais képp ku am CV képp ku am ku nekk déposé bu ñu gisee ni euh, li ñuy laaj li ñu bëgg am nga ko ñu ñu ñu xool ñu fal la ci loolu <clears throat> ku nekk ku wóolu sa bopp géew bi yaatu na làmb ji yaatu na dama nga déposé pour sa mérite nekkee dañuy jël li ci jiitu mooy soxna si su ko neexoon ba mu liggéeyee ba am diplôme mu dem biti réew liggéey yi foofu mais def ko dafa ñëpp liggéey Sénégal mais kan moo leen wax ay dossier nekku ci table depuis 2012 ndax moom yàgg na ñëw Sénégal te nit ku ne xam ngeen saa boo liggéey ba am diplôme ba am ba am da ngay déposé est ce que nekkul ba nga ko déposé ba léegi dañu koy tegoon ci tiroir yi comme mag président dafa ne dafa président sortant bi Macky Sall dafa ne woon sama conc bi maa ci teg dossiers yu bëri hmm? ñu seetlu léegi jamaay ba mu ñëwee dossier yëpp yi ñu tegoon conc yëpp da kaa dindi te dégg ngeen la fois passé génn bi lu wax. est-ce que kon nekkul ba mu génnee dafa gis dossier bi kii xam ne kii ku war a mën li ñu ko jox ni comme war a mën a météo lañ jox ko bref léegi nag bu ñu seetloo euh, jamono gu ñu toll nii APR benn bokk yaakaar ki nga xam moo yor euh, kaddu Amadou Ba daan ko conseillé ci ginnaaw yàgg na trop ci 3 mois ba 4 mois 5 mois néewoon na Amadou Ba dafay génn fi nga xam ne moo di APR di benn bokk yaakaar ndax xëy na amaan na am nañu ko fonk am nañu ko fa bëgg mais am na ñoo xam ne considéré wuñu ko. te effectivement nit ki boo nekkee ci dëkk nekk ci koñ nekk ci fenn ngay dund ci ñi ngay dund ak foofu respecté ñu la jox ñu la cër xoolal fi nga mën a dem ñu jox la cër ñu respecté la. <coughs> ci loolu Amadou Ba du yàgg di ngeen di gis ni léegi mu annoncé wan fi mu ban parti la parti am la muy tudd non seulement de gis nga ni la fa passé génn ne bokkutul APR wala bokk bindal nañ ko ne nee nañ bokkutul APR bokkutul benn bokk yaakaar benn ñaareel ba. Umar saw gis nañu kii di Macky sàll am doomam bi nga xam ni da doon takk soxna jamono ci ginnaaw yàggul dara Macky sàll président dafa bàyyi xale boobu am Amadou Mame Diop muy président assemblée nationale pour mu takkaliku ko lan moo tax Omar Sow moo gën a indi leeral la moo tax Omar Sow da ko leeral Omar Sow dafa ne président lii laal doon bañal li tax ma la ko doon bañal du leen lu dul ñu la doon jege di la wax ak di la conseil lu baax lu baaxul ak suñ ne lii la ñoom ñu ne du loolu lii la tey ñoo la teg coono gi yëpp ba sa bi nga xam ne fi nga juddoo yaroo fi màggee fi jàngee fi tekkee fi ñoom ñu del ñu defal la lu nekk amatoo droit amatoo seen sañ jamono guñ toll dugg fi Sénégal est-ce xam ngeen Macky Sall jamono guñ toll nii bépp aéroport bu nekk Sénégal am fi droit jamono gi amatul droit ci tànkam bu tegee tànkam ngay jàpp est que xam ngeen loolu. te xam ngeen Macky Sall moo gën a ragal Ismaïla ak Yacine ah du du nee ma du ñëw de <laughs> mais du gaaw a te Macky Sall ragal moo ko poussé ba jour ba xam ni euh, joxante na leng ak euh, Diomaye toogul Sénégal automatiquement dafa dem te mënoon na toog tuuti sax mënoon na toog benn jour wala deux jours mais xam ne bu ko bu ko defee mën na am ñu tëj euh, aéroport bi comme moom nu mu ko defee woon ndax dafa ñëw rek toog fayantoo waaye Omar Sow daal ne président yi laa ko doon bañal lii laa ko doon bañal moo taxoon ma ne ko ma ko doon conseil ci lu bëri waaye tey ji mu ngi nii ana lan moo gën a ñaaw sa ndey du du dund sa baay di dund kenn di la takkali kenn la takkali voilà ñun nag gis nañu bàyyi la ku nekk lañ koy jox waaye la moo tax ma damay damay a benn question ma ne la moo tax Macky Sall euh, bàyyi bi bàyyi la doom ji mu dem ñaanal ko Aliou lan moo xew ci diggante foofu. waaye nag ba léegi lu mënta xew rek famille su ma am xuloo fi ñu fekk bref léegi nag ay <laughs> Omar Sow euh, ba mu waxee loolu juróon na coow lu bëri ci réseaux sociaux yi man damaa bëgg commentaire man damaa bëgg commentaire man moom soo duggee ci internet ba ma seetaan li ma seetaan tuuti rek automatiquement dama dem ci commentaire seetaan foofu lii commentaire lu bës lu bëri doogee ñëwaat ci vidéo bi eggalag am ñu ne ko mooy ñenn ñi rek répondeur automatique yi daal di ko Omar Sow da ngaa seytaane bul fàtte yaa doon jaamu Macky bu fàtte Macky Sall fii la la jox loxo nga sujjóot mel ni nga ko sujjóotal comme ça sëgg bu baax di ko sujjóotal mel ni euh, mooy sa buur te lépp man sama gis cër la rek non seulement ba ñu nekk ci sañ ñu woon wax dara Omar Sow gis ngeen ko noonu moom moom moom mu ngi rek. léegi tey ci exemple ñu gis ni xaawante sutura bi dëmbante bi mu ngi commencé am APR bu baax baax benn bokk yaakaar ndax su weesoo loolu euh, Amadou Ba ba léegi gis nañu jamono kuñ dool nii. fi nga xam ni moo ni 7TV di télé Maïmouna Ndour fay Cheikh Oumar Anne tamit génn na Cheikh Oumar Anne moom lañ moom lañ ne woon lu jëm ci wàllum xaalis mbooloo bu mu ko laalati waaye nag gis ngeen ba bañ koy waxee la ko Macky Sall fala beneen cër beneen doomu tànk bu gën a kawe boobu ndax jamono ba ñu koy wax direkteur la woon ne gis nga après ñu ko ma falaat ministre Macky Sall Macky Sall moom bul def lay bañ a dégg le article yi rek moom la lay def waaw dama dem moment boo xam dafa dem ba jëfaru dafa dem moment bi nga xam ne dafa dem ba jëfru ba mujj bi sax day naan est-ce que lu ko Laay Wàdd tuddee woon du dëgg du ma ci egg nag mooy dee u eggale la lañ des am laa Wàdd moo ko tuddee woon moo ne moom Macky loolu la dafa dem ba Macky Sall dafa mel def loolu la jëfru doon dafay dafay jëfru da doon euh, lépp lu Sénégal constitution bañ nag Macky Sall commencé woon na di ko ndax bu ñu demee ba ñu euh, épinglé woon euh, Cheikh Omar Anne kii lii xaalis mbooloo te askan moom ko buñ ko dénkati Macky Sall fëlax loolu dem dox xola dénkaat ko ba xaas bëri gis nañ fan yii paas ñu épingle ko ci ci foofu kunt ci leneen ba léegi moom nag nee jamono guñ toon àndul ak Amadou Ba am na ci droit ak wax yu mu fa wax yëpp ci 7TV boo leen demee dañuy gis vidéo yi Aliou Sall gis ngeen fan yi passé génn na RFM. ci invité bi nga xam ne Babacar Fall def na ko waaye tamit dégg ngeen kàddu yi nga xam ni jokkal am na wax na ko foofu moom di xalab ki nga xam ne moo di Mansour Faye wala tontu ki nga xam ne moo di Mansour Faye ci laalante bu saf-saf mu ñaar bi léegi kon APR benn bokk yaakaar ñu ngi dëmbante bu baax a baax koo euh, si jël du jeex du xaaj koo si jël du jeex du xaaj boo xoolee jamono guñu ton yi APR benn bokk yaakaar nu PS meloon ku mettul fa lañ nar a jëm ji mooy dañ nar a tas complètement catégoriquement waaye ñu yem ci loolu euh, il est que ñu tas mu jeex waaye ñu ngi xawante sutura di yàkkante der te yàkkante der boobu amaana du leen gënal ndax euh, gouvernement bi fi toog ñoom lijjantewuñu après cinq ans lu ñu lijjanti mooy naka lañu mën a def ba. jàll ba seen cinq ans yi ngeen fal ñu ñu ñu réussir ko après rek bu askan bi gisaatee war nañu mën a yokkal ñu yokkalaa leen mais leen ci askan bi dañaa gis ñoom Diomaye day toog cinq su paree jox Sonko mu toog su paree joxaat Diomaye mu toog su paree Sonko toogaat su paree ñeneen ñeneen ñeneen daal jël gis-gis askan bi la wala boog leen ci patriote yi ñoo koy wax amaana xëy na ñoom li li loolu am na ñu ko teg waaye lu ñu gis a joxaat maa ngi naan dañoo koy joxaat comme ni ñu ko joxee woon liggéey na ñu fal ko gis ni liggéey na Sénégalais wóolu ko jox ko ñu bëri sax nee nañ déedéet daf ka sàcc waaye li mënta am Sénégalais ñooy fal te ñoo ko fal. Hmm? voilà léegi dañu gis loolu. léegi ngeen gis ni loolu affaire yooyu dafay commencé di kii kon nag ñoom ñoom dañu naan ne ñoom xaaruñu beneen mandat mandat bi ñu leen fal daal nañ def lu mu mun ci lu mu mun nañ ko def ngir réussir ko après lu ñu des mooy loolu mais patriote ñoom dañ naan. Sonko Diomaye day toog ba pare joxaat Sonko Sonko pare joxaat Diomaye après ñuy xool di passé toon Abbas Fall jël wax. mais APR benn bokk yaakaar nu ñuy demee nii suñ ko continuer rythme bi non seulement sénégalais ñeneen ñi dañu leen jëppi de moo tax ñu sanctionné mais rythme bi bu ñu ko bàyyiwul di ko continuer di def gëm naa dañuy perte dañuy daanu catégoriquement comme nu AFP daanoo waaye AFP sax mën na nekk woon ci donkaas gi mais comme ni. Euh, bu ñu seetloo PS daanoo mais comme ni PDS daanoo comme ni comme ni ndax xam nga ngeen gis ngeen baax PDS dafa daanoon te bi ñu koy yëkkatiwaatee mën naa ne coalition ba sëñ ma jaxal fay moo tax mu yëkkatiwaat mu jugaat ak ak coalition bi nga xam defoon nañu ko ci législative yi ñu génn loolu moo mayaat doole PDS mais PDS daan woon na bu baax euh, loolu moo daane PS ba sax mu nangu intégré wu fi nga xam moo ni benn bokk yaakaar ba sax ñu bëri doon xalab ki nga xam ne moo di Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla xaral aljana ak ki nga xam ne moo di euh, Aminata Mbengue Ndiaye nee ñoom dañaa jaay PS parce que PS mënoon nañu ko jox Khalifa Sall mu kon na ko mënoon nañu ko jox kii mënoon nañu ko jox kaa mais ñoom jamono googu li ñu defoon xam nañu ko baax ndax Khalifa Sall amuloon popula euh, popularité bi nga xam ni non seulement xawoon na am tudd doole mais amuloon popularité boobu bi nga xam ne mën naa yëkkatiwaat PS ndax parce que PS dafa daanoon ba dugg ci ban ba suñu mettul nag def rotation ak li ñu gis ni ci politique euh, foofu la APR benn boo ko yaakaar naa dem wala sax benn bokk yaakaar foofu lañ nar a dem li la ñu indi loon ci jàngat ci Buzz Actu 221 di sàkk ngeen abonné aimé partage commentaire like asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakatuh